jërëjëf El Hadji Abdoulaye Niang asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa euh, suñu mbokk yi tey jii nag fas yéene indi xew-xew bu mag bi nga xam ni moo xew bërka démb rek ñu demaloon leen fa muy Touba Touba nag li waral mu jóg daañ leen ko wax tey ndaxte di bés bi nga xam ni ci suñu maam borom Touba jóge fii dem ci la nga xam ni mooy tukkeem bu màgg boobu nga xam ni dafa dem jëli indi loolu nag di xew-xew bu mag boo xam ni moo waral màggalu Touba maam Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké maam Cheikh Ahmadou Bamba bu Mamar Anta Sali bu mam Jaaro Bousso Mbacké kon nag woote boobu nag nekk na woote bu mag tey jii nag moom la leen fas yéene indil télévision national am mbégte gu mag ak bànneex ci année 1983 màggalu Touba moo tax tey ñu woo suñu ñaari xarit suñuy doomu ndey ku mel ni kii alaaji Clédor Diagne ak Jibril Fall fas yéene nag waxtaan ci li nga xam ni moo waral màggal ki nga xam ne nag di xalifa général lu kulli murid sëriñ Abdou Lahad Mbacké moom nga xam ne màggalu ren gi moo jël li nga xam ni moo ciy dooleem yépp teg ko ci kaw sëriñ Moustapha Bassirou Mbacké mu yore organisation kon tey daañ ci dugg ci dugginu sell wu rafet waaye nag Touba buñ koy laata sanc am na lu tax maam borom Touba ne nañ sanc Touba kon nag Jibril Fall foofu am na lu mu taalifoon ma bàyyi laa kàddu gi.